rahmatullah mbokk yi ñu leen nii baax di leen ziar euh, di la fàttali ne yaa sa canal Daraman mobile ngeen fi amee seen astuce yu am solo yi euh, tey nag benn vidéo lañ bëgg a dikk boo xam ne bu gàtt la mooy recherche orale maanaam euh, nga bëgg a dara ci Google nga bëgg ko recherche loolu boo ko bëggee da ngay wut benn application bu ñuy wax assistance assistant lañ ciy bind mooy bii nii bii bi ma isolé ci biir de demander, ça va merci. J'étais en train de me dire qu'il est l'heure pour une petite pause cet après-midi. Si ça vous dit, je peux vous donner un mot intraduisible, il suffit de me demander. La température actuelle La température actuelle à Dakar est de 31 degrés. En raison de l'humidité actuelle, la température ressentie est de 38 degrés. La Première Guerre Le bilan de la Première Guerre mondiale. Voici un résumé proposé par cndp.fr. Au total, la Première Guerre mondiale a fait environ 9 millions de morts dont plus de 2 millions d'Allemands. Ces morts étaient presque exclusivement des militaires tués au combat ou morts des séquelles de leurs blessures ou de maladies entre et

Merci, à bientôt. Avec Ok, vous savez où me trouver. ok euh, recherche bi nii la nga xam ne lépp loo ko recherche lépp loo ko demandé rek euh, ci question moo xam ci sa téléphone la jëm moo xam ci leneen la jëm lépp loo ko demande rek dina la ko expliquer. moo xam mu envoyé la lien bi wala lenn lu ci benn site waxoon daal dina la ko eh, dina la ko envoyé lu am solo la am na solo trop recherche bu gaaw te am solo la eh, foo xalaat rek loo ko ca laaj rek eh, dina la ca wax su fekkee sa connexion normale na loolu moo nekkoon vidéo tey bi asalaamaaleykum wa rahmatullah